la communication on a mhm. aussi envie de parler de la communication du gouvernement envers le peuple sénégalais bi tension yi amee diggante le premier juin gis nañ leen ñu def seen conférence de presse plus de quatre minutes su toog di expliquer la situation mhm. avant ça sax amoon na la déclaration de la police nationale ñu bëri aussi am ci ay ñàngat ndax tamit ku bañ ñu ñu critiquer la yaakaar naa bul génn ku wax ñu jàngat ko donc mhm. il s'est passé le gouvernement minimise wala qu'est-ce qui se passe avec leur communication. alors waxtu waa ngi daaxante xam naa il faut ñu gaawal ko mais mais soo xoolee la communication du gouvernement Aïcha ñoom ci seen bopp. on a l'impression ñoom ci seen bopp. Mm-hmm. war nañoo rendre compte ne dañu mel ne ñoom dañuy waxee gauche seen dañuy waxee droite Sénégal dina déglu gauche. wala ñu waxee gauche Sénégal dina déglu droite. dafa mel ne euh, lu ñu mënti expliquer. Mm-hmm. soo paree yow def benn tour ci réseaux sociaux yi wala nga lire. wala nga déglu rajo yi ak télévision yi da ngay gis ne li ñuy wax dugg ci bopp sénégalais te man loolu dama jàpp ne ñaar waral ñett ñaar ba ñett waral na ko bi ci njëkk mooy pour man su fekkee ne yow da nga da nga benn stature boo war a incarner mm-hmm. nga nekk ministre de la république ngay premier ministre wala ngay keneen Aïcha sa communication benn dafa war a raar mais sooy communiquer da ngay communiquer dans le cadre defini par la république mm-hmm. cest à wax li nga xam ne moom la ku incarner tuuti ci république war a wax li ma bëgg wax foofu mooy ministre de la République pour man wërta dàgga sante wërta communiquer jëm ci ay Diakhaté ñu sentir ne kii dafa am mer bu metti wala mbañeel bu metti bu mu jëmee ci kooku gis nga buñ doon buñ ñamoon ñoom ñoom gouvernement wu Sénégal buñ ñamoon buñ doon wax ci Ousmane Sonko jox ko cër bi nga xam ne moom la ko yàlla jox mooy d'abord yàllaa ko def un citoyen sénégalais def ko maire de Ziguinchor ba pare def ko le chef de l'opposition gis nga buñ ñamoon ñi nga xam ne ñoo ñoo ñooy incarner la république ñi ñu muy ki nga xam ne ministre bi président nommé wala keneen ak keneen mm-hmm. mm-hmm. suñ ñamoon buñ dee wax ci moom nga sentir ci seen wax mm-hmm. que ni am na benn respect benn cër ñu ko wax buñ koy darajaale ba pare doog koy wax seen ay dëgg léegi xëy na sénégalais yi mën a dégg li ñuy wax mais su fekkee da ngay wax ci moom ki lay déglu sentir benn haine bu extraordinaire boo jëmalee ci ngóor si ba pare nga génn cadre bi nga war a waxee. di wax ci beneen cadre les gens ne t'écoutent muy benn. beneen mooy dafa am benn sénégalais defe naa bu tudd Toumani Mendy bu mas a bind benn livre ci wàllu communication. dafa wax ne gis nga Aïcha boîte bu dara newul. mënoo communiquer ba jaay ko. déedéet wala boo ko jaayee beneen koy jaay kenn koy jënd jaay keneen. gis nga gouvernement wu Sénégal bu ñu yaakaaree ne communication mën naa tax ñu wax sénégalais ñu gëm loo xam ne nekkul dañuy nax seen bopp. l'exemple que je mooy. su fekkee ne le ministre de la justice dafa ñëw 2001 ba léegi ñuy wax ci affaire Ousmane Sonko Adji Sarr euh, l' acte de renvoi lan la ci juge bi def lan la ci bind Sénégal yi bu waxtaanee ko ñu waxtaanee ko fépp fépp magistrat yeeg avocat yeeg sama genre jàngul dara waxtaanee ci ba pare. Hmm. ministre bi ñëw moom dong moom kot. mu hmm. toog ci Sénégal. <laughs> ne ne ne juge d' instruction bi ci ci ci euh, kii ba ak de renvoi boobu wax na ne. ordonnance de renvoi boobu justement wax na ne. juge bi mën na topp Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse tout de suite nga gis gars yi jëlewaat ordonnance de renvoi bi ñu tegal ko ne ko page nangam ba page nangam gisuñu fa ordonnance y a problème gisuñu si y beneen bi mooy su fekkee ne euh, da nga nekk un parti au pouvoir mhm. wala nga nekk une coalition au pouvoir dafa am loo war a incarner dafa foo foo war a teg niveau bi mhm. am na boo bëggee sa communication passé am na yoo am na yoo xam doo ci dugg mais tey xoolal Aïcha depuis quelque temps ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ci turu pouvoir bi waxuma ministre yi ah, waxuma mm-hmm. porte-parole du gouvernement mm-hmm. mais ñi ngay gis ci plateau télé yi mais Aïcha ku ci wax nga rus ku ci wax nga rus damay dem ba ñii dama naan ñii tombé nañ ci benn piège mooy dañ daan gis les jeunes de l'opposition mm-hmm. ñoom ah parfois sax yaa naa yoo xam c'est des c'est pas des gens de l'opposition mooy ñuy tudde ay live rek ay influenceurs dañuy mu leen neex di wax lu leen neex le pouvoir est allé jusqu'à créer lui-même ses propres influenceurs et liveurs. pour les contrer. exact ñooñu aussi. ñëw te te dafay mu ngi leen métti depuis ci Assane Diouf. 2016 exactement ñooñu aussi ñëw di ñëw ñëw di saaga nit ñi. Mhm. mais mais mais un pouvoir ne ne fonctionne pas comme ça. man un pouvoir ne règle pas sa communication à travers les réseaux les réseaux sociaux. les réseaux sociaux mën nga ci dem def une communication mais dafa am foo xam ne fa nga koy teg. Mhm. am na yoo xam ne doo ci wàcc mukk et malheureusement malheureusement seen communication dafa wàcc trop ci loolu. Mhm. Euh, te xam nga exemple yu bari bari man am na ñu ma ci gis ñuy wër naan dañu war a tëj wal faj rek nangam mais wax naa ko waxati ko ku ci neex ku ci neex mën nga yëkkat sa kàddu saaga Moustapha Diop ndey ak baay. Mhm. yàlla xam ne du ma leen tontu. bàyyi naa leen ak yàlla. wax lu leen neex mais beneen bi mooy Aïcha soo gisee euh, li gouvernement am difficulté dëgg pour la ko ak sénégalais mhm. mooy expliquer leen li sénégalais jàpp ne injustice la man aussi ma jàpp ne injustice la te gouvernement mënu ko expliquer Aïcha. Mhm. depuis 2012 la Macky Sall jël pouvoir du Sénégal. Mhm. kenn mënu ma gëm loo ñi fi wàcc yoon ñëpp opposition lañ bokk. non non sax. kenn mënu ma ko gëmloo. manifestation bu fi am waa opposition la ñuy jàpp su ay doomu aadama faatoo waa opposition la ñuy jàpp. Mm. su amee luñ bind ci Facebook opposition la ñuy jàpp. lu lu mën ci am opposition la ñuy jàpp. Mm. léegi est-ce que gouvernement bi du togg mu jàgg mu ne moom su bëggoon ñu ñu déglu ko dëgg. Mm. bëgg ñu gëm li muy wax mais xanaa dina ne. ñi bokk ñi far ci nguur gi am na ci ñaar ak ñett yoo xam ne ñi ngi saaka nit ñi nañ leen jaarale nit ñi jaarale ñeneen ñi. Ah wala déet. Ah. soo tëjee tele bu mel ne wal fajiri parce que seen correspondant dafa wax ne armée bi wàcc na ca Ziguinchor pour def nangam ak nangam. mais après doo xool ne ci benn télé wax nañ fa ne. même bu ñu rayoon quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais aussi il faut appliquer la loi dans l'affaire Ousmane ah, Sonko gouvernement bi ne ah taxal ma sanctionné lii lii bu ma ko sanctionné soo lëggee su ma sanctionné keneen ñu ne loolu la nit taxaw fii ne euh, Ousmane Sonko dañ ko war a rey gis nga su su suñ bàyyi woon les magistrats sénégalais mm. ñu ne ki wax loolu nañ ko jaar ci yoon comme ni ñuy jaarale yoon. ku mhm. wax dara ci président Macky Sall. léegi nit ñi mën leen a gëm mais les gens ne les Sénégalais ne sont pas fous tu peux pas mettre nit dos en prison depuis bientôt six mois sinon su ko ëppul. Mhm. pour des propos yoo xam ne chaque jour nga dégg ku far ci nguur gi di wax la même chose. Mhm. sinon pire. ñun ñii xam nañ ci dara. Ah te yoo xam nga ci dara. comme de fois lañ ñuy saaga euh, di ñu ko di ñu ko yónnee suñu téléphone te du mujj fenn. Ah am na ci ñun ñoo xam ne agressé nañ leen physiquement mujjul fenn. mais personne ne peut me faire croire que ni 2012 ba léegi réew mi lu fi dëng yépp ñu contre Macky ñoo ko def. ni am na ñu lay fii di saaga waale mais mais ñi <laughs> ñoom li ñu def yépp dafa jub. Ah mais tant que le gouvernement est dans ça pour man pour mu convaincre Sénégalais dans son discours lu mm. jafe la. Ah moo tax ma jàpp ne il faut revenir d'abord à la posture mooy wax le minimum possible rester dans le cadre bi nga xam ne moom la république may. dama couper signal Walfadjri mm. parce que dañoo fauté sur nangam la communication s'arrête là-bas jusqu'à ce leneen am mm. mais su fekkee da nga ko bëgg topp naan waa Walfadjri di dàggasante waa Walfadjri mais tu plus dans le cadre bi la République may <laughs> yaa ngi ci dàggasante yaa jigéen ñi nekk borne fontaine ñoo yow te jigéen ñi sax defatuñ ko di di di li xale naan yaa ngi joxaale bës koo xam ne mën na laa lor même Juan Branco sax ñu ngi ko cay laxaale mais bien a peut-être wu ci yooyu Mm-hmm. mais bu ñu demee tamit ba di ko tudd seen i conférence de presse yooyu c'est parce que mm-hmm. am na lu ñuy craindre en quelque sorte loo xam ne mënuñu ko wax mais tey jii ñoom euh, may nañ Juan Branco man Juan Branco personnellement xaw ma ko lii moo tax ma découvrir ko parce que li may léegi yëpp. man maa ngi ko xam bi ko arrêté aéroport delloo ko. waaw ci procès Ousmane Sonko ak man euh, li li may léegi yëpp mm. yàlla xam na ne l' actualité internationale yow xam nga dara. ça m' intéresse je lis beaucoup luy xew ci réew mais Juan Branco musuma mm-hmm. ma déggee ne Ousmane Sonko da koo jël avocat aussi intéressé wu ma. parce que dama jàpp ne ba ñuy àtte Mamadou Dia am na avocat tubaab bu fi nekkoon bu tudd Robert Badinter. 62 mm-hmm. boobu ñun juddooguñu